Étoile au cœur du social et le slogan qui nous réunit aujourd'hui ici au rond-point de l'université Charente Diop pour clôturer ces ndogu sociaux organisés par euh, la grande structure BD Events. Et mesdames, messieurs, nous voici à la quatrième édition. Voilà. nous lañ ko fas depuis quatre ans bi mooy ñeenteel bi at bi ak si nañ ci cappaandaw bi fas yéene tëj li nga socio ni moom ndogu sociaux yi nga xamanteni wa BD Events ñu ngi ko amal fi ci rond point université Cheikh Diop. voilà mu doon lu nga xamante lu loola parce que chaque jour ay euh, ndaw dañuy bàyyi seen ay cœur liggey ba wàcc bay sen ay kër daal di ñew fi nga xam mom modi ci rond point université bi daal di fasiyena jox ay ndogu ñi nga xam ñom ñoom nekk di di passer depuis ba koor gi commencé ba légui amul benn bëss bo xamni tebal nañ ko ci ñi ngi fi macha allah donc voilà ñu ñewon fi rek fasiyena ko clôturer daal ci and ak bien entendu euh, suñu ay partenaire daal ci and ak wa biddiw bu bes and ci ak ñeneen ak ñeneen donc ci kanam tout rek duma def lu dul jox kàddu gi ki nga xam mom modi moo di mu fasiyena rek voilà wax li ñu fi dajalé tay ji Euh, salam, salam alaykoum ñu ngi ndokkeel ñep di ziar ñep ci weeru sell wi bon je pense que man mën naa bañ wax wax bu bëri sax parce que comme à chaque année ñu ngi fi teew et que les les les choses parlent d'elles-mêmes waaw ñun mom mën bu yeboo man euh ñu ngi ci ginnaw dal di pousse initiative bi depuis pas mal d'années et c'est toujours une fierté euh, de voir Bidew Events chaque année muy def ay jéego yu gëna kawé ci social bi.

entraide ak solidarité je pense que vidéo events mu ngi koy mu ngi koy jëmmal à travers li ngeen di def yëpp au delà même de weeru koor gi rek li ngeen def ci santé li ngeen def ci social bi ngeen def à travers le Sénégal ñu ngi koy gis et ñun moom vraiment à la base comme je dis affaire bu ndaw la woon mais léegi dem na ba nekk leneen ak leneen donc dañuy ñaan muy perpétuer wu ba nga xamante ne dina servir d'exemple à toute cette jeunesse ñu xam ni que waroo xaar waaw pour dimbalante dañu war a dimbalante te yàlla tax et je pense que ci weeru koor wi euh, encore la gën a amee njëriñam donc euh, euh, émotion la am ci à chaque fois que les choses grandissent la famille s'agrandit à chaque fois avec tous les partenaires donc du tout tour Je damay remercier ñep ñep ñëpp et di wax ni li mom ci kaw ci kanam ak wa Bidew Events en tout cas kontaan nañu du fond du cœur et ñu ngi leen di encourager. Béri une question. Béri en tant que artiste rappeur. waaw nga nek ko xamné ne ni tey ñëpp ràññee nañ la fi ci Sénégal. ràññee na mo lool aussi ñu gëj la gis tay ñu gis la ci li nga xamné moy initiative bi di. Euh, def te yàlla tax lañ ko mën a tube ndax daanaka social la. Mhm. ñu gis la ci nga ñëw ànd ceeg euh, benn fierté boo xam ne nii tey euh, mën naa mën nañ ne gisatuñ artiste boobu noonu. mais mhm. vrai ki nga xam ne mooy copain ki xarit ak ñooñu ngeen gis quoi. lan moo waral bi nga ñëwee ci biir mbooloo mi nga wàcc sa bopp ba tolloo ak ñoom ba wàcc sur le terrain di joxe li nga xam ne moom mooy. oui mais xam nga balaa ngay nekk artiste nit nga. xam nga balaa ñu am étiquette bu ñu mënta am ci àdduna ay nit la ñoo xamante ne tey nit moom da nga war a nite donc at étiquette bi dégg bu bees bi wala étiquette leneen ak leneen après la ñëw mais ci nite rek nit ku nekk danga nga war a jëriñ sa moromu nit et étiquette boobu la ñu ñëwee parce que Biddew Events ay frère lañu à la base euh, fan club la woon bu yàgg mais ñu dem ñaax leen ci nañu organiser wu am seen i këyit ba nekk ñoo xamante ne dañuy dañuy dañuy def ay action et donc aujourd'hui ñun mënuñu lu dul am ci fierté artiste nga nak da nga wara nek euh, la voix des sans voix da nga wara nek ko xamanteni da ngay nek interface pour toute une jeunesse et je pense que tay suñu rôle la ñu ñëw tay taxaw euh, entreprise yu mel nii lu mel ni ñu mën ko ñu mën ko ñu mën ko pousse suñu devoir la en tant que porteur de voix en tant que artiste kessé en tant que nit aussi et donc loolu la moo tax euh, nit ku nit ki moom dafa war a jëriñ nit mbokk moromu nitam rek et humilité dafa war aussi parce que ñi ngay gis yépp ñoom ñooy ñëw ci concert ñoom ñoo ñu dooleel ñoom ñooy nekk ñi nga xam ne ñoom ñooy jënd album yi donc lii da leen ko war a delloo ñu ne ñu ni neen la mhm. ku nekk il joue ça dafay jouer partition parce que tey kuy waay tamit bëgg nga ku la tàccu bëgg nga ku la seetaan ñoom à la base dañu bëgg te yàlla tax et comme ni nga ko wax bëgg te yàlla tax moom def te yàlla tax rek moo koy moo koy firndeel daal mhm. mu nekk lu am solo mais en tant que artiste tamit dañuy ñëw ci domaine boobu noonu mhm. ñu gëj la gis aussi fan la projet yi toll ndax biddew euh, bu bees ñëwaat euh, niveau bi nga xamné ne na ko. yee biddew bu bees musul musul jóge ci ci ci ci musul joggé ci niveau bi parce que je pense que tay def nañ fi lo xamante tay même buñu ñu toggee ati ati at ba tay mi ngi fi té respect bobu Sénégal jox nañu ko aduna mu ngi ñu jox donc tay suñu làqatoo da fekk rek ñu nekk ci yeneen mbir yu fasantikoo euh, ay tournée wala ñak nekk Sénégal lu bari wala ci yeneen action sociale ñu def à travers le monde mais vidéo mi ngi fi xëy musicalement la ñu gëj gis té lolu mom inshallah je pense que c'est c'est le moment parce que bon on wu leen il y a quelques années euh, activités c'était beaucoup plus politique surtout fi Sénégal politique bi mom mo xawon téewon li nga xamanteni mom moy euh, affaire yi bu baax mais légui je pense que alhamdoulillah on a on a un nouveau président diko ñaanal yan bi par la même occasion woyef ci kawam et xam Sénégal Ben bop la et au delà de la politique politique day passé mais and bi ni day des wa buñ ci waxante ay wax yu doy war buñ ci xaxarante parce que après ñoo ci rouss parce que ñun ñoy dajewat ci yi ñoy dajewat ci ngénte yi ñooy dajawaat fu nek parce que gis nañ ni quelque part ak réseaux sociaux yi xam nga sànnante xeer bi kii fii la far kii fee la far bëri na bëri waay boo xam dafa dem ba yàq tey li nga xam mooy tissu social man appel boobu laay lancé waat et tout kii far fi kii far fe amul solo mbokk gi day des xaritoo bi day des te vivre ensemble day des loolu mooy le message fort loolu moo ñu fi dajale tey tey ku ci nekk ci ñun kii far na fële politiquement kii far na fële ci côté religion wala dara mais li ñu boole moo ëpp solo loolu loolu la ñu war a lancer comme message et ñu waay bàyyi wax ju ñaaw ji xam ne Sénégal benn bopp la loolu nag warul nekk ci ay wax ak dafa war a nekk ci jëf te jëf bi Biddew Events bi ñu ngi koy firndeel yéen ñi fi taxaw yéen ngi koy firndeel donc alhamdulilah loolu laay wax na yàlla na jàmm sax Sénégal loolu moom mooy dëgg et que Biddew Events ci kaw ci kanam lii di law ba ci seen sët ba ci seen sët sëtaat parce que Sénégal li la soxla en fait. mais un message message euh, pour ñi nga xam ne ñoom nga ànd ak euh, mooy lii di association Biddew bu bees. Mhm. tey jii lan nga leen di wax pour ñu gën a mën a taxawaayu li nga xam ne moo di association bi. Biddew Events. Biddew Events waaw. non Biddew Events mooy li may wax rek wax ji sax soxlatul muy bëri parce que ñoom li ñuy def mi ngi wax. waaw lii xëy na mënul woon ñàkk rek leen ma jiital xëy na respect la rek mais wax dëgg yàlla bu que les choses parlent d'elles-mêmes ñoom dama leen di ñaaxaat di

Iya, iya, Nous voici avec uh, Matar, non déplié aussi de Bidiou Boubès. Matar tey nga ñëwoon fii uh, ànd ak uh, waa Bidiou Events ci seen clôture de Ndogo nga Hani Momo de 4 di quatrième édition bi ñu bëggoon rek nga wax ñu rapidement lan mooy say impression. déjà xam nga mbay di tëgg na lépp ah donc euh, li may wax ni rek loo xamante ni si lu ndaw la commencé euh, màgg ba mel nii.

luy barkel la ci loolu ñu bëgg di sax parce que ñun rek tey bi bu bees mu ñu dara bi biddew events tey li ñu def keneen ak keneen ak keneen war na ci jël comme model pour di ko def di ko perpétuer mm-hmm. am na amaana ñu koy def sax mën nañ ko def année bi année prochaine ñu mo mu gëna a wàññeeku mm-hmm. wala benen année mu gëna a mais da ngay gis chaque fois dafa gëna yok yokk mm-hmm. loolu mooy sama fierté mo tax des fois duñu bëgg sax di fess ci biti bëgguñu sax di fess dañu bëgg di nekk ci ginnaw di appuyer affaire bi di law parce que loolu mo am importance ay jeunes yu dynamique di def yu mel nii si biir Sénégal dañ ko war a encouragé te loolu mooy suñu fierté ni voilà merci beaucoup Matar kontaan jaajëf kii parle au nom de l'association